boo wax leen di leen fàttali ba tey dinañ seen émission bi nga xam ne mooy Teranga Plus te Aji Kumba di ko def mais nag saa su ne dafa am ay lu mu fiy dugal moom moom xam nga dafa xaw a trop parfois mu dugal politique bi parfois culture bi parfois musique bi mais loolu am na solo bàyyi ñu ngi nuyu bu baax. yee salaamaaleykum El ñu ngi leen di fay bu baax a baax vraiment di nice lu invitation bi euh, di ziar gars yi di leen balaax di leen baluwaax ci ramadan bu sell bi. te ñu ñaa di ñaan yàlla aussi tamit vraiment mu nangul ñu suñu ay ñaan quoi ak suñu ay koor vraiment. ah Baye tey bu ma doon laaj euh, kan mooy Baye Meissa Mar. <laughs> tontu benn benn la bu nekk biir ginnaaw raay vraiment euh, di di def musique euh, actuellement les bancs quoi j'ai fait les bancs quoi. bàyyi woo si trace góor yi ni koy waxee sama dër na nekk ah, en tout ah. cas bon teel nañu bàyyi quoi benn instant. Ah, lan moo ko dugg si rap. mu nekk loo xam ci commune bi mu nekk surtout miniature Xombol. oui euh, bëgg ci dugal mooy xam nga boo nekkee ci benn benn koñ xam nga vraiment fekk vraiment day nekk loo xam daf lay neex. Hmm. après a une moment donné nga ci nga leen di jege rek bon hmm. boo deful ndànk loolu dañ lay influencer ci ci li ñuy def quoi hmm. loolu la. Fat Boys fan la juddoo. bon <laughs> Fat Boys mi ngi juddoo ginnaaw raay quoi ginnaaw raay la juddoo. xam nga voilà léegi gars yi jël ko décentralisé ko mu nekk Fatboy de Khombole quoi actuellement yee. ndax amutoon dama déggoon kaddu mat ñu ne Fatboy dafa sosoo si kaddu waaw waaw waaw loolu boo xoolee euh, ginnaaw raay dafa bëri woon ay talent quoi benn instant. Mhm. parce que boo xoolee euh, sunu gars yi ñoom Tafa Ndiaye quoi. le salut de passage ñoom ñoo ko fi commencé moon ñuy dangereux boy. Mhm. ay ñoom Ibrahima Ndiaye nekk manager ay Zulba même Zulba il mhm. était là je bi. Eh, moom la américain yi lancé woon quoi ci benn golf mm-hmm. ci benn golf quoi chinois mm-hmm. donc général bi ko piloté woon gars yi di ko tuddee woon ko Enola Gane moom moo njëkk a testé bombe boobu mu defoon ay ravage mm-hmm. donc ravage yu grave yi nga xam ni tey defoon na ko gars yi léegi affaire boobu noonu xam nga touché leen ñu jël ko tuddee ko fenêtre wala wala porte bi affaire yooyu noonu la fa demee donc ravage yooyu nga xam ni euh, Fat Boys defoon na ko aussi tamit bon ñun bu ñu toppee parcours bi du ñàkk aussi yenn son yi ak yenn yenn yenn explication yi xam nga bon su génnee rek. day day touchante quoi day day def ay ravage Fat Boys di nekk groupe boo xam ne nii peut-être yàgg sa rakk yéen a fa ne mais am na ñeneen nekk seen ginnaaw ñu xam ne nii ay bopp borom bopp te kenn du leen gis. waaw waaw waaw loolu moom vraiment euh, lu ma neex la pour leeral ci quoi. Mhm. boo xoolee Fat Boys ay kàngam ñoo ko créé woon. Mhm. Euh, donc ay Mor Diop fay mhm. donc il est professeur mhm. euh, à l'université mhm. euh, de Saint-Louis quoi mhm. Berger donc nous avons créé Fat Boys quoi donc nous avons gars nous ñu ñu un groupe bi euh, tous Fat Boys donc à tout moment nous avons créé nous dem aussi Nous faté que nous créé won nous def rek dañ leen donc ay ñom Mor Diop ay ñom Kanté ñoom ñoo créé woon Fat Boys donc mu nekk affaire boo xam ni euh, dafa amoon doole loolu biir ginnaaw raay mais ba léegi nii may wax ak yow gaa yëpp dañuy déggante ak ñoom seen xalaat ñu nu koy jox xam nga ñun tam ñu leen di jox suñu suñu seen xalaat quoi voilà. Fat Boys su commencé di di gangrène na ñu koy waxee commencé di nekk level boo xam ne nii euh, mu commencé touché xombal dimension bi dépassé xombal jëm li nga xam ne mooy biir ma gis Fat Boys am ay coalition yoo xam ne nii ay collaboration yu rafet jëmal si jamaan. Je si a de si ambition au niveau national. oui effectivement euh, non la fa musique souvent mon musique la quoi. Mm. musique quelque chose universel. Mm. universel quoi. donc dem. am quoi. groupe euh, muy demee noonu lay amee ay branlo quoi ci biir mhm. donc comme ñi nga tudd sànq bon voilà waa express ñoom jaamaan euh, Salman xam nga wóoree ba quoi mhm. bra mhm. donc ñu amoon nañ ñoom tamit aussi benn relation bu nice ba jotoon leen fee indi indiwaat leen fi quoi euh, te ba léegi nii may wax ak yow relation boobu mi ngi gën di exister di gën di dem quoi comprendre nga donc loolu nag li ñu ko may mooy suñu gëm-gëm ak li ñuy def nice gu mu nice xam nga ñoom ñu fil ko ñu tamit ñu fil leen voilà te yemul ci moom aussi tamit quoi parce que euh, xam nga am na ay ñeneen ak ñeneen yenn artistes yoo xam ne xam nga lu ñuy gën di dem après temps bi dinañ la ko gën a expliquer ba nga xam ni Fat Boys am na yeneen collaboration yoo xam ne nii tamit du du du waa Express rek quoi. du waa Express. Euh, benn un moment boo xam ne ni Fat Boys da doon yëngu si dëkk bi am ay événements yoo xam ne da ko doon def na fi ay am solo jëm si drogue. oui oui benn xam nga olof Ndiaye dañuy. Euh, comment dire français dañuy chaque chose à son temps quoi. Mm-hmm. donc euh, defoon nañ fi mm-hmm. ay lutte contre. Mm-hmm. la drogue. xam nga ba ministre bi sax aussi filoon na loolu quoi dikkoon nañ ci moom expliqué ko. dem ci autorité yëpp tegal plateforme bi quoi. parce que dañoo gisoon ni moment boobu. vraiment xam nga drogue bi bëri woon na xam nga jeunes yi booy ku ne di tux affaire yooyu ñu ni lii nii ñun ñoo ko combattre en tant que jeune quoi. Mhm. ñu dem tégal ko ñi nga xam tey ñoom ay kilifa lañ ñu apprécier lolu ñaanal ñu ci quoi. Mhm. donc lolu lancé bobu aussi dañul ba légui quoi mhm. parce que boo xoolee euh, Fatboy actuellement ni dafa nekk ci projet album. voilà voilà. parce que dañoo bëgg li nga xam ne mooy doyen xombol daa vraiment si jëm ci li nga xam ne mooy au niveau national. Euh, euh, ñu gis tamit loo xam ne nii Pape Boys doon na am fête de la musique mhm. ku ne fête de la musique xeet yëpp tamit bu nee xombal moom bu yàlla taxee ñuy wax rek dëgg taxee ñuy wax rek mhm. bu nee groupe de rap instant yi Pape Boys tax ñuy wax ñu gis yeneen groupe yoo xam mhm. nekk concurrence si yéen wala waaw xam nga <laughs> loolu seen kër sax da nga fay nekk di concurrence quoi concurrence mënut a ñàkk parce que day relever défi quoi voilà mais ku nekk ki nga war a ñu koy jéem a def quoi yeah Baye Mbaye ma ko tuddee ñu ko gars yi di waxee. moom euh, ku tàng. présenté leen ñan ñooy ñun ci dëkk bi quoi. Hmm. parce que ñun nous sommes les ambassadeurs quoi ñun ñooy ambassadeurs fii mu neex wala mu naqari ñun la. ambassadeur ci la ci musique bi. Hmm. ñun la voilà te ñun aussi ñooy génne hip hop xombol di ko di ko teewal feneen. Hmm. voilà comme euh, fête de la musique boobu li tax ñu génnoon def benn conférence de presse. juste pour leeral. parce que dañuy leeral du du ragal. setal seetal la quoi. ça dit fofu foofu noonu manque de communication sax mo amone moo tax ni mu demee mu démé mmh. parce que bo xolé lo xam yow fête de la musique lañ wax. ça mmh. dit monde bi yëpp diko def ci aduna mmh. mu am calendrier. bo xam chaque année date lay doon quoi. euh ñi nga xam ñom lañ jox culture bi nekkul seen xel. lool dañ koy wax quoi nekkul sax seen xel quoi. parce que culture voilà culture boo koy joxee da koy jox ku ko xam. yaa ngi comprendre mm-hmm. tu vois donc ñoom nekkul sax seen agenda on se dit la vérité parce que bu ci nekkoon ñoom ñun ñu njëkk a woon ni ñu ah fête de la musique nii la noonu ko def ko mm-hmm. ñun ñoo toog ba benn moment ñu xam ne vraiment euh, li ñuy génn fête de la musique yi ni am mm-hmm. pour ñu génn vraiment bari na bari goo xam ne ñu ne pourquoi pas fii xombal mënuñu koy teewal chaque année quoi mu nekk clan am na yenn booy dugg ci net bi xam nga dikk def seen conférence de presse di wax que ni ñun ci boppam ñun ñoo lekk su fête de la musique alors que demut noonu mm. voilà ñu ni nan yi bàyyi noonu mu sedd mais gars yi ñi nga xam li ma la doon wax sànq quoi que ni groupe bi dafa am ay mag. Mhm. ñoom ñoo woo téléphone ni ñu lii nii il faut ngeen leeral affaire bi quoi voilà ñu ne ci sonorisation. Mhm. ñun du ñu ñun suñu concert. suñ ko dee def dañuy def concert boo xam ne tey jii nii ku ñëw di ko seetaan si. Mhm. même bu artistes yi playéegul sax di nga xam ne lii nii c'est di qualité quoi. parce que foofu lañu toll. duñ dem xam ci kër yi di indi ay banc affaire yooyu di teg nii pour artistes yi ñëw taxaw ci kaw rab non dañuy dem déplacé wu Thiès. xam nga luy benn estrade bu mool bu baax sonorisation bu claire boo xam da ngay toll marché nga toll ginnaaw raay di sonorisation bi. Mhm. comprendre nga xëcc tamit fil courant bu doy wàcce ko ay volts yu bari. Mhm. comprendre noonu lañ ko defee donc 400 millions yi bi mu ñëwee bi ñu ko joxee. Mhm. dañ ko jox kanamu ñëpp. maire lañ ñu ko joxe monsieur le maire moo ko joxe woon. xam nga bi ñu ko joxee ñu jël ko dugal ko ci sonorisation te nag li gën a mooy ñoom ñoo ko waxaale ah. monsieur le maire mi ngi dégg li may wax. moo waxaale sonorisation voilà moom moo waxaale sonorisation bi. ban ne ko c'est à quatre cent mille francs. cest à li may wax nii dafa leer naa ñu ko te dama nekk ci euh, télé quoi. comprendre nga ñoom ñoo ko waxaale ba d'accord à quatre cent mille francs. ñu yëkkati ko fay. comprendre nga. mooy sonorisation bi waroon na ñëw ak euh, chaine bi. ak euh, camion bi koy. estrade bi tout ça. c'est à quatre cent mille francs. ñun ñu dem ba ci biir am sax problème parce que dañu foogoon ni comme maire moo ko initié ñun ñoo ko initié maire ji moom la ñu téléphone expliqué ko mu ne loolu noonu c'est pas un problème ñaata la ñu wax ko ko ni ko cent cinquante la mu jox ñu ko voilà quoi ci ci vraiment ci contentement tamit quoi bi ñu ko joxee man ñi ñu koy joxe ji ñi ñu ko joxee ci place Aliou Ba man maa ni gars yi ñu photo ñu dugal ko ñëpp yenn booy di leen gis di leen gëmloo ni que ni di laaj cachet ñun ku ñuy laaj kase mais ñun nañ war a laaj kase wala maire nañ war a laaj kase te kase sax boo laaj da nga koy continuer laaj mhm. man loolu laa gëm su may dem bay gis def benn affaire dama koy continuer ah mhm. da ngay laaj kase mais voilà d'accord mais continuer ko mhm. mais laaj kase kii bañ non non nañ laaj ñëpp kase voilà bi ñu demee nag ñun loo ñëpp ko bokk daa jar ay laaj kase quoi bi ñu demee noonu après ñu teg concert bi yenn artistes yi nga xam ne comprendre nañ ay ñoom ñii nga sax gars yi mag ñi ñëw nañ presté affaire bi nice vraiment euh, li ko gënoon a yàq nag mooy bon taw beeg yooyu parce que amuñu woon voilà jaam ak uh-huh. xam nga moo taxoon yenn public sax génn mais public bu fat boo rek bu génnee uh-huh. c'est autre chose quoi noonu la fa demee quoi euh, euh, bi nga xam ne amoon ngeen ko uh-huh. nekkoon xat-xat boo xam ne mais est-ce que bàyyi tamit du problème boo xam ne nii yéen ñi nga xam ne yéen a jiite xombol ne artiste moom kenn mënu ñu fi génne est-ce que jotul ngeen toog waxtaan trouver benn consensus am benn comité boo xam waaw xam nga tey par exemple loolu loolu mënul yomb quoi mënul yomb mënul yomb parce que essayé nañ ko essayé waat ko essayé waat mënul dem parce que ku ci nekk parce que gis nga musique mbir musique moo nekk loo xam ne ku ci nekk da ngay job individuel sa staff ak yéen yéenay job individuellement quoi c'est-à-dire li nga xam tey ji mooy booloo cest boo bëggee boolee artistes yëpp te ku mm. ci nekk bokkut ak sa moom li muy def mm. loolu loolu vraiment day euh, day ça ça ça sera autre problème quoi donc loolu moo tax booloo boobu noonu mënul nekk mm-hmm. voilà mm-hmm. mais mais mais comme ça comme par exemple tey boo xoolee boo xoolee boo demee ay Dakar wala Thiès wala Diourbel da ngay xam ne artistes yi nga xam ne ñoo nekk foofu am na benn comité bu fa nekk di s'occuper culture ba xam ne bu génnee dina ñoom dinañ mënatoo waxtaan comme fête de la musique bi amoon bu fekkoon ne amoon ngeen comité bu koy piloté li eh? du am. waaw loolu loolu venant eh, de loin la quoi. Mhm. loolu fan la waroon a jógee loo gis dafa am source quoi. Mhm. c'est-à-dire loolu fële la waroon a jógee. Mhm. Eh, maire yi ñoom ñoom seen. ki nga xam moom lañ dénk wàllu culture bi moom moo waroon a jël affaire bi bu fekkee nand nañ culture mu ñoom ñoo ko waroon a jël ame xool affaire yi génn ci benn budget bu am doole jox ko ñi nga xam tey ñooy organiser. di leen carrément lii budget bi lañ génne mais lii lañ ci war ñoom ñoo ko waroon a def mm-hmm. mais boobu noonu xaju fi woon parce que temps bi xojoon nañu ba nga xam ne nii te mm-hmm. ñu jox leen ko ñu piloté kon nice gars yi ñëw si a loolu rek la waroon doon li nga xam ne mooy fête de la musique mm-hmm. yàlla def tamit euh, semaine passée mu nekk le 18 mu nekk journée mondiale de la femme ñu koy fêté ñu gis tamit Fat Boy c'est même chose boycotté la mën a tuddee. ak su ma def conférence de presse. waaw d' accord ehm, voilà quoi donc mooy ñàkk comprendre rek. avant boobu sax seen petit gars lañ njëkkoon na fi am ah. voilà seen petit gars lañ njëkkoon na fi am pour gën la suqali affaire yi quoi leeral la. Mm-hmm. c'est-à-dire seen petit gars lañ njëkkoon fi am. ñu contacté ñu téléphone boobu suñu suñu personnel bi yëpp gars yi ñu ngi woon studio. mel man rek maa fi desoon quoi. ñu mm-hmm. euh, Jules moom moo woo. Mm-hmm. c' est Jules ba qui m' avait appelé quoi. bi ma woowee. ma ñëw mairie ñu toog réunion waxtaan artistes yëpp nga fa moom ci boppam mu ni carrément lii kat monsieur le maire moo ko initié patati patata expliqué ni voilà noonu la fa demee dañu bëgg a def neexal seen petit gàll la seen petit bal la. voilà ñu laaj ma man leen loolu lu am importance la ko voilà après moom ci boppam mu ne nag dafa bëgg artistes yëpp ñëw jouer. ma ne ko jouer comment.

ça sonne mal aux oreilles. mais est-ce que tamit Baye doonatoo moment boo xam ne nii tamit nga sacrifice sa bopp fête la fem la seen talent moom kenn waxatu ko xomba gépp xam nañ ko mais kooku municipalité bi déployé na ay moyens woo ay artistes woo Daba Seye woo Pape Diouf pour bëggal yi nga xam ne moo jigéen est-ce boobu taxutoo ngeen teg lépp loo xam ne jëm na si ay conflit ñëw yéeg rek ngir xombal tam. balaa boobu deuxième deuxième euh, deuxième partition bi la deuxième partition bi la bon. ñëwaat nañ wax thème bu am solo nii dañuy sargal jigéen mm-hmm. ñun bi ñu ko yëgee dañ ko nice trop vraiment mm-hmm. parce que le fait xam nga nga am ba boobu idée mm-hmm. euh, c'est quelque chose à saluer alors que ñun ñëw nañ ñu wax ñun wax ñu ko sax dañ koo gis nii rek ci internet bi ñu ne ah voilà monsieur Ablaye Tine et cetera le maire kërëb kërëb bon dañuy célébrer xam nga journée je ne sais je ne sais pas voilà walaa quoi après ñu noppi gis nañ ko liir nañ ko ñu noppi kenn woowu ñu téléphone ni ñu nag jour bii la. Mhm. te dañu bëggoon ngeen def seen participation. Mhm. je suis en direct. Mhm. amul kenn ci ñoom ku ñu woo. ni ñu ñëw leen ci concert bi nii la ak naa. loolu moo tax mais ni tamit bu la tey yow bu la invité benn fu la invité soo ko demee kaas sax boo fa bu buñ la fayee ko da nga war a fay quoi parce que invité wuñ la. noonu la fa demee. donc ñu jugee si nga xëy suba woo média yi def su ko. waaw parce que xeer ku ne. voilà te te te te te lan moo waral est ce nekkutoon tamit nga wax sànq moo tax tamit ñu toog ngeen toog maire monsieur le maire toog ngeen culture toog. ngeen waxtaane ko benn une bonne fois parce que boo xoolee maire macha allah ma rëy booy monsieur le maire ñu ngi ko ñëw au passage moom tamit ko xam culture la parce que au moins booba tey mi ngi décante sensé pour indi li nga xam ne mooy culture en forme te mën ñoo wax culture à xomba te mën ñoo tudd Fat Boys mën ñoo tudd groupe de yi fi nekk est-ce que tout eh, temps ngeen toog waxtaan xam ne problème bi pour mu jeex. balaa monsieur le maire ñu ngi koy saluer de passage initiative yu nice lay teg loolu moom bon bon dañ koy wax quoi ay initiative yu claire yu nice lay teg mais amul ñu ko piloté. Ah, mbir su dikkee dañ koy jox ñi ko moom ñu ko mën. ñu piloté ko ak artistes nga xam ñoo fa nekk ay. ay supérieur ñu and ak ñom dox ci affaire quoi mu nek lu nice man je pense que lool non le monsieur le maire nous def mm. donc li nga xamni tay tey jii mm. na moy que ñun ci bopam concert bobu non mm. suñu ci wax li tax ñun ñu génn def suñu suñu suñu suñu suñu mm-hmm. donc juste moy suñu fans yi ba 23 trois ñi ngi téléphone Nous avons des gars parce que ñun ñoo ngi won ci je pense mais imagine toi tey loolu c'est autre chose aussi. Hmm. yow ay groupe yoo xam ne dañoo am ay papier dem hmm. si nga ji BSDA seen ay son ay tout hmm. protéger tout. comprendre nga. nga jël leen affiché leen ci liste sans autant leur permission c'est grave. ñu koy def nañ ko baax. comprendre nga ñu def ko ba pare boole koog nag di apple appeler ñun suñu ay fans jël seen ay téléphone woo ñu naan ñu. Euh, voilà loolu di xaar affaire yooyu. Uh-huh. dem nañ ci sax ki nga xam tey jii nii mooy Mbaye Gueye. Uh-huh. muy jaaykatu yàpp ca ndaw uh-huh. <laughs> mu koy tege noonu. voilà di ko salué à la moom moo mujjee jël téléphone am woo ma. ni ma sawaay lu tax ñëwoo leen ma expliqué ko mu ne ma léegi da nga yow ñaata ngeen bëgg ma fay leen ko. ma ne ko fiis c'est pas le temps c'est pas le moment. c'est-à-dire le coup est déjà parti. gars yi wóomuñu wóomuñu nañ bàyyi peut-être beneen yoon. lu dàq lii yi ñoo gis Fat Boys en masse ñëw yëngal foofu boyal ko ba mu boy mm-hmm. ba ñu jóge woon Dakar mm-hmm. xam nga suñu dikkee nga xam ni ici y a y a du talent mm-hmm. te loolu rek ñun mooy suñu bébét mooy képp koo xam tey jii nii ñëw nga indi sa orchestre bu Fat Boys génnee def prestation normale di nga xam ne vraiment fii nii y a du talent te ñii ku leen jàppale ñu waxuma la euh, Sénégal mais autre chose gën di dégg quoi ñun loolu rek mooy suñu dégg yeewe di leen fàttali ba tey yéen seen émission bi nga xam ne mooy Teranga Plus première partie bi ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy Climar ñu gën kaa xam ci Baye Maïsama mu nekk un homme très engagé un jeune très engagé aussi tamit nekk koo xam ne ni gëm-gëm bi mënta mooy mënta weesu li nga xam ne mooy groupe Fat Boys depuis loolu ñu koy dégg ñu dem fu ne di leen seetaan mu nekk tamit groupe boo xam ne mi ngi sigil xombal parce que fu ñu toll xombal leen représenté la fois passée bi leen gisee li nga xam ne mooy TFM di leen seetaan suñu xel day day dal na parce que dina am nañ ay ñoo xam ne ni ay homme très engagé euh, bàyyi dugal nañ ci li nga xam ne mooy diwaanu xombal dama li nga xam ne mooy traitement bi entre vous ak li nga xam ne mooy culture bu xombal je pense que ñoom dégg nañ ko xam naa dinañ fi am ay leçons yu ñu fi rek gën fee waxtaan euh, Fat Boys am lu muy préparé lu waaj wax nga ko sànq ci biir introduction muy benn album ba ma tey ñu koy xaar mu nekk loo xam ne nii gars yi impatient pour mu ñëw pour bëggal waa Khombole yeah nice muy vraiment question boo xam ni c'est pertinente quoi lu lu lu nice la quoi pour ñun ñu koy poser souvent ñu koy ñu ñu koy répondre parce que boo xoolee c'est-à-dire groupe day carte d'identité nationale c'est-à-dire album euh, carte d'identité nationale la quoi ci ci ci artiste mm-hmm. groupe bi àgg nañu niveau yooyu mm-hmm. ñu ni pourquoi pas ñu jéem a def benn euh, album balaa mm-hmm. quoi après album bi bi nga def te buñ demul ni la carrément budget album bi lii la quoi comprendre nga pour ñoom ñu jàpp ci parce que gars yi amuñu woon yenn mooy pour def ko wax nañ leen ko dégg nañ ko amul kenn ku ci euh, ku ci def apport ba lii may waxee ak yow yàlla mi nga xam tey jii di naan looy def rek def ko ci engagement ak gëm-gëm. Mhm. ñu ne comme ñoom defuñu jàppuñu ci ñun suñu biir bopp ñun ñoo koy jéem a essayé. Mhm. ko essayé après yàlla def ñu am benn productrice venant d'Italie ñu koy wax Roxana Crociati production. Mhm. kooku moo jël engagé groupe bi signé ñu label. comprendre nga. ci ay affaires yu claires. ni ñu nag voilà album bi je finance financer tout gars jël ko financer ko ñu def album bi. ñi ngi ci en cours. donc Baye dañuy taxaw foofu parce que dafa am benn foofu dina fi ñëw. mu bëgg sama réalisateur tegal ma li nga xam ne mooy son bi nga xam ne def nga ko muy point de vue bi nga xam ne moom la def. am na ministre de l'intérieur te boobu ba léegi biir bi di booy dara changé pour fii tey jii ñëpp commencé tàpp mais duñ àggale te booy bëgg am yee islam ni nga tàmbalee julli ci ndoor màgg ci ndoor nar nañ ci bis masih malah juga pintar gitu bergumur Tunggu kuat ya afundulana tu bincang Saja tu berbara dan eh affair biola Manci jam melai dah pumalai tu neci sakri Ku bisa bayar sendiri ya bola kurir sanggar Seringkali amnab salah gue waaw gis nga gis-gis point de vue bi nga xam ne moom ngeen bind si at mi weesu gis nga nga xam ne li ngeen fi bind mooy jëm ngeen ci li nga xam ne mooy mooy d'abord ci li nga xam ne Sénégal di génn na ko muy métit yi nga xam ne am na si plan sanitaire santé ci li nga xam ne mooy économie si wàllu politique mais si xombal ngeen laal suñ deux personnes yoo xam ne nii muy ministre de l'intérieur am nga loo xam ne joxoon ngeen ko joxoon li nga xam ne mooy maire bi ba tey yéen a ngi si engagement boobu ak détermination bi voilà yee naaj sànq lii nekkoon na benn affaire boo xam ne résumé sax lañ ko tuddee woon quoi li nga xam ni xam nga ay fee la dañuy dañuy dañuy commencé ba laal foo xam ni tey jii c'est c'est c'est autre c'est worldwide la quoi mm. c'est-à-dire Fat Boys noonu la quoi mooy li nga waxtaan bombe bi ravage bi muy def mooy yi quoi mm. fee yi nga xam ne tey jii mi ngi am ñu koy xam cest à moom lañ jël résumé ko ci benn tënk ko ci benn kii génne ko parce que su fans yi yàgg nañ di xaar album bi quoi mm. c'est-à-dire euh, pourquoi par ñu def benn affaire may ko gars yi le temps ñu nekk ci joobu album ba léegi nii quoi. Hmm. loolu moo nekkoon loolu lii sama bool te gaa groupe bi dafa engagé. groupe bi hmm. dafa nekk groupe boo xam ne dafa capable de faire tout ce qui est hmm. euh, normal quoi. loolu mooy Fat Boys quoi. donc moo tax ñu ni nañ ko def. may ko gars yi le temps ñun ñu ngi fii xam nañ fi affaire yi toll. fi mu commencé ba fu mu di am ñun ñu ngi ñu ngi à l'écoute quoi. mu nekk son boo xam ne nii gars yi ñu ngi koy bàyyi xel muy premier début 2022. Eh. tamit boo xoolee pot pour may wax rek mooy seen dimension weesu na xombal parce que yéen dem ba ci dimension internationale mm. yéen wax li nga xam ne moom la Sénégal jàkkantoor ci 2022 bi rawatina tamit mbas mi fi newoon ñu jëm ci coronavirus bi mm. ñëw tamit yàlla def nga mm. ko fii mooy Ballon d'Or bi ci Sadio Mané jël ak Coupe bi loolu tamit day wane ne ba tey xarañca bi ngi si yéen ba tey nice mooy euh, li ma lay wax rek tout le temps quoi cest ki day màgg Fat Boy dafa màgg Fat Boy dafa def euh, album boo xam ni dañ dix titres la quoi mm-hmm. def quatre sons yoo xam ni duñ ko sax boole ci album bi mm-hmm. parce que te son soo yi ci ëpp ci album bi ay tem la son les son thématique mm-hmm. son bi dina laal xombal son bi dina laal Sénégal dina laal the world donc loolu mooy Fat Boy dañuy jël li nga xam ne lépp rek ñu ngi koy gis ak li nga xam tey ji mi ngi baax li nga xam mu ngi bon jël ko tënk ko résumé ko teg ko li nga xam ni tey ji nii Sénégal yi dinañ am entente quoi ñu may leen ko. Mhm. voilà loolu la. waaw yaa ngi woon ci am solo muy album bi nee nga am na autorité yoo xam ne dem ngeen ci. ba tey seen loxo ñëwut mais yàlla def am ngeen ku leen benn producteur boo xam ne moo waaw loolu joob la xam nga liggéey. Mhm. Euh, liggéey liggéey la quoi boo dee comme li ma lay wax sànq rek naan la boo dee liggéey mhm. cest à euh, boo dee liggéey rek loo loo loo mënul am rek ci yow la que yaa ngi yeewu karaw di ñuul gëmal ni ñàkkoo dara quoi cest yàlla def boole ñëw benn productrice boo xam ne tey jii nii Isa lan la jógee di ko produire ñu nekk ci album bi donc ki nga xam ne monsieur le maire Lamine Gueye aussi moom vraiment dañ koy saluer di ko saluer di ko saluer de passage quoi parce que à tout moment c'est-à-dire projet bi moom bi ñu ko ko tegalee benn affaire la ci wax quoi daf ni lii nii lu nice la te lu ñëpp war na mën a def seen participation la quoi donc sama participation nag du nekk lu lu lu wees à tout moment dinaa di sama xel mi ngi ci j'espère avant album album bi damay def parce participa te ñun tamit néew ñu aussi tamit kenn du ci jàpp quoi je pense que ba keroog album bi di génn album la quoi cest à nit moom bu lay jàppale du question sax xaalis la la war a jox mais y a des yoo xam ne tey jii nii vraiment de acte de jàppale la quoi ni ñu ko mën a waxee album bi nekk combien de titres bon album bi dix titres lay doon quoi somme bi dana bëri woon yee trop sax. Hmm. parce que album bi ñun. ni ñu xayma fi xaalis. day bari parce que ñun ñu doon xaar. sa dafa wees suñ jor parce que am na son yoo xam ne dañ ko doon jouer en live quoi. Hmm. te live dafa miti. Euh, ku nekk ci ci orchestre bi da nga fay pour mu ñëw jouer le benn instrumental euh, instrument. nga fay ko quoi donc album bi boo xoolee tey jii laal na un million et quelque. suñu album bii nii ñuy def nii. Hmm. laal na un million et quelque. Euh, ci durant un an yi quoi. voilà laal na un million et quelque quoi. Mm. yee donc fan la toll instant yi. dans RAS boo mm. xool ni ay dernier réglage moo ci ne. Mm. ay dem dugal ay ay dem déglu la. suñ dégloo bu ñëwee voilà lii nii. mu mënuñu koo gën a defee nii côté boobu lañ nekk quoi te xam naa ne incha allah balay ramadan bi nii di dem. fekk tout tout tout lépp finir. ndax mën nañoo xam thème yi nga xam ne tënk ngeen ko fi ndax tey. <laughs> waaw thème moo xam naa ñaar laa la ci mën a wax quoi. Mm-hmm. ñaar rek quoi yoo xam ne c'est intéressant mm-hmm. Euh, am na boo xam ne axiru zaman lañ ko lañ ko tuddee quoi voilà mu axiru zaman ku dul bind kat doo ko bind ko mhm. voilà donc ñu jël li nga xam tey jii ni mooy am ak actu en actualité mhm. jël li nga xam tey jii moom moo fi ne mhm. ak fi suñu génération bi toll ak jeunesse bi ak jigéen ñi tout ñu tënk ko tuddee ko axiru zaman voilà ak beneen sound boo xam ne tey mooy gars yi bëgg lu yomb li quoi. Hmm. voilà gars yi bëgg lu yomb li ñu tuddee ñu tuddee son bi album bi ñu tuddee bon euh, titre boobu Boy Dakar quoi. Hmm. voilà non imaginaire ñu tuddee kii Boy Dakar. man gis tamit ci titre bi dañ mën ni li ma foog naa ko si wér cooki waaw parce que Armageddon hmm. la album bi tudd quoi. Euh, gars yi sax dañu buñ teel a joxe ay mais man na ma ni mu proposé nii nan lañ ko joxe quoi. Mm-hmm. parce que ñun xam na ni ñuy liggéey quoi. mu mm-hmm. mm, Armageddon mu nekk benn affaire boo xam ni euh, c'est extraordinaire quoi c'est-à-dire bu ñu ko doon tey jii fi la ñuy fanaan. mais dafa garaaw. Mm-hmm. lu garaaw la. voilà loolu dama koy def surprise. mais nañ jàpp ni comme ni nga jàppee yow. guerre finale. guerre finale moom dafa maanaam dafa jeexal téere yi. Uh-huh. cest à yàgg nañ ci xaar Fat Boys. groupe bi mais lu tax wul mën a def. album. Mm-hmm. wuru mën a def ci non. Mm-hmm. c'est-à-dire ñu ni nag ñun dañuy indi benn album boo xam ne dañu koy tuddee fin di guerre finale quoi. Mm-hmm. fin last fight. last fight anglais dinaa ko last fight moom lañu indi quoi. muy dernier <laughs> waaw yaa ce que man mën maa jàpp ne kon Fall Boys yi foofu mooy foofu mooy last time fa guerre finale. ci li nga xam ne tey foofu la. Euh, foofu la euh, euh, régime bi toll la quoi. Hmm. voilà guerre finale. Hmm. ci fi nga xam ni foofu la régime toll parce que étant underground dafa am quoi. ñu ñu nekk ci underground bi xam nga. Hmm. di di dem studio duñ matal paas. xam nga wala ñuy dem di jouer son ñu fay. wala ñu dem concert. ñëw fekk maire bi reer bi jeex. état boobu. état boobu boobu ak état bi nga xam ne fi lañ toll moment bii nii loolu lépp lañ jël def ko guerre finale loolu lépp day jeex voilà ci nag li ngay liggéey moo lay may loolu ko mooy job bu nice bi mm-hmm. ak qualité musique bi mm-hmm. ak euh, voilà quoi li nga xam ni tey jii nii foofu la groupe bi toll mm-hmm. aussi duñ fàtte tamit aussi di saluer euh, studio bi nga xam ne tey jii ñu ngi ñu ngi nekk foofu di ko def ko parce que dañoo varié studio bi dañoo jël LSD record euh, voilà jël bafu studio bu nekk Thiès la di def lu nice quoi Yeah. studio bu nekk Thiès di def journaliste ñu jógee si Krima Fat Boys ndax ñoom instant ban lan am ak rappeur yi xombal yi ku jëm si Diadji Ka xam parfois ngeen am ay compilation rafet jëm ci Zack ni nga Zack jëm ci ay Kangado lan actuellement ak parce que liñ euh, sari ànd yàllaa kay def quoi yàllaa kay def. Mm. nit di nga bëgg a nit te sa yàlla defoo doo leen quoi. Mm. nit da ngay comme par exemple. tey ñu bëgg a am ni sax da may fiil ma fiil la ñu mën a ànd hmm. xamante yàlla moo koy def ci ci ci jaam quoi nit ñi nga dëkk ak moom ci benn saa doo leen xamante quoi hmm. loolu yàlla moo koy def mais étant ñun ak gars yi hmm. toujours li ñu leen di wan mooy lu nice parce que seen ay grand lañ actuellement ñun seen ay grand lañ ñenn ñi suñuy booy aussi suñu ay grand lañ tey par exemple mën naa citer Niga Jacques à tout moment dañuy discuter dañuy waxtaan ci leneen loo xam sax aussi di musique jaaji aussi la même chose des fois ñu déggante mooy loolu xam nga li nga xam ne tey ji mooy kànga ñoom kaang hmm. ba fan nekk à l'extérieur gars yi dañuy déggante ak ñoom hmm. mbay fi ji aara kay azam ay relation yu nice laa am ak gars yi nga xam tey ji nii ay grand lañ woon hmm. di di di yëkkati move bi te ñoom aussi saa bu ñu déggee lan la ñuy wax yéen la quoi gars yi na gën a nice loolu dañuy suuf su de motivation la dañu koy may moo tax ñuy gën di dem ak suñu fans yi nga xam tey ji ñoo nekk ginnaaw nekk xombal aneen partout donc vraiment ñoo ñooñu amuñu seen fay. ñom ñoy tax aussi ñuy gën di fay mais bu doon ñom sax bàyyi na parce que yan bi diis na. Mm. comprends nga donc ñom nak ñono nu ba tax duñu reculer dañuy gën a avancer. Mm. c'est ça quoi dañuy gën a avancer di leen fatali ba tey yéen seen émission bi nga xam moy mooy Teranga Plus tay ñuy dalal suñu première partie ki nga xam moy mooy nek ci groupe bi di Fat Boys dégg ngeen ko wax sang album bi na ngeen ko xaar mu ngi euh cri ambition yi lan la li des mooy damay gis ñi nga xam moy di dem di fess ay stade parfois gis naa leen stade Ibrahima Fall bi Diourbel ngeen dem fa gars yi yuuxu li tàccu. pourquoi pas initiative boobu di feesal stade yi. très bien question bu bu nice mm-hmm. parce que ñun dañuy génn. Mm-hmm. dem ci ay stade di fa jouer muy fees dell. Mm-hmm. te ñu nu fay fekki suñu ay morom lañ. mais pourquoi pas ñun xombal waruñu mën a am stade. boo xam ne xam nga dañu fay dugg teg suñu stade mu fees dell. stade bi ñu koy defar mais pareegul. Hmm. comprendre nga amuñu salle de spectacle boo xam tey jii nii satisfaire nu groupe bi. loolu dañu bëgg sax balay album bi di génn incha allah monsieur le maire. Hmm. je te je lance un appel monsieur le maire. Hmm. loolu noonu taxaw ci loo mën di def rek actuellement loolu moo ko gën a prioritaire. nga fexe stade bi pare. booy xombal yi dem jouer. comprendre nga artistes yu xombal yi di fa jouer. ñëpp di fa jouer. mais am ngeen foo xam ne mu ngi lay ma pare centre culturel bi. bon centre culturel bi. voilà commencé nañ ko mais àggugul xombal wax nañ ko ci son bi. Hmm. dañuy commencé rek mais du àggale. Hmm. dañu bëgg nag moment bii ngeen di àggale. Hmm. parce que loolu mooy initiative bi quoi ngeen li ñuy commencé ngeen àggale wala li ngeen fekk gars yi commencé ko. ngeen àggale ko. loolu mooy li nga xam tey jii dama leen koy wax donc di wax gars yi aussi ni leen ñeent yi may nii bu ko bu nga ko foget. nañ ko respecté monsieur le yow laay expliqué loolu. football bi. musique bi théâtre bi volleyball bi taekwondo bi gars yi na ko gars yi farataal te xam ni culture ak sport voilà te xam ni mhm. moo mën a piloté xombul yóbbu ko fu mhm. parce que tey boo génnee Diourbel wala whatever mhm. Fat Boys duñ duñ wax rek Fat Boys yam Fat Boys de xombal ñu ne ah, ñi fa la dëkk ñu ne xombal loolu noonu fiette la musique bi ah dafa am lu muy def quoi musique yamul ci fi nga dëkk rek day day siiwal la même chose pour football bi kon nañ ñu jàppale defal ñu ay salle de spectacle yoo xam tey jii nii dañ fa mën a indi suñu ay nit di fa ngat ni spectacle payante ñu wa ilaa ñu defaral ñu stade bi booy xam nga man di dugg ñu feesal affaire bu muy nice quoi loolu la muy nice euh, voilà da may ni waxtu ñu ngi xaw a ñett première partie rek après dañ def deuxième partie parce que faaw album bi ñu gën fee chaque fois ñu gën di jege album bi ndax waaw waaw waaw loolu moom loolu moom c'est important abdoom bi instant bi gars yi dox nañ ci ay jéego yu sori sori sori ba xam ne tey jii mën naa ne tey bu doon quatre vingt dix pour bu doon cent pour cent ngi quatre vingt quinze pour cent hmm. ci li nga xam ne album bi génn la hmm. ñu ngi xool sax naan est que pourquoi pas gars yi dañ ko génne after korité bi quoi. Hmm. bu ñu finiree li nga xam tey jii moom la ñu war a finir. Hmm. donc album bi dafa am ay titre extraordinaire. Hmm. album bi doo xam bari ci boppam ñoom ñoo ko war a jënd mu jeex tàkk. parce que fere nañ ci xaalis te ñoom ñoo la war a jàppale aussi groupe bi génn au niveau national jot na. ñu ni Fat Boys partout xombal Sénégal gépp xam yaa a un groupe qui existe quoi à l'avant loolu c'est normal mais ni ñu ko mën a may mooy monsieur le maire respecté ñu. donc ki yor wàllu culture bi respecté ñu xam suñu gëdd xam ne ñun dañuy jël ay son di ci fay lu cher mais nañ ñu jàppale tamit ñun tamit ñu ci mën di mm-hmm. loolu rek la quoi mm-hmm. kàddu bu aussi voilà kàddu bu mujj moom may wax tamit aussi mm-hmm. lancé waat appel rek tamit yéen ñu jàppale leen parce que xombol point net dafa nekk affaire bu am important xombol waaye ñëpp koy suivre nan leen jàppale ñu gën a yokk matériel yi na ci ñëpp jàpp na teg ci loxo même ñun sax pourquoi pas nañ ci jàpp mhm. gars yëpp teg ci loxo affaire bi dem xam ne ñun ñoo ko moom mhm. parce que bu ñu bëggee expliquer benn affaire mhm. nag xam nga loxo par loxo loxo par loxo gars yi ñu jàpp ci ñu aménagé waat salle bi gën a yokk matériel yi ñëpp di ko fiil Sénégal gi quoi ba mën a am télé nice merci merci boobu nga xam ne wax muy xombal point net ni nga ko waxee noonu la amee ñun c'est une on donne des informations sûres mm-hmm. tamit aussi tamit euh, doomu xombal yi ñoo fiy liggéey donc pour je pense lancer un appel encore une fois à l'endroit des autorités politiques ou des autorités locales. Mm-hmm. ñu gën a jàpp si nga xam ne mooy site bi nga xam ne mooy xombal point am na ñu koy def na mais tamit nañu fi gën a jàpp. ni mu ko waxee sàng mooy kàddu yi mu ko waxee sàng te mu tënge ko mooy nañ jàppale ki nga xam ne mooy groupe Fat Boy su xam ne dañoo nekk si ay album yombut kon kenn ku ne rek mën na fee mën a jàppale nga xam ne tamit ay doomu xombal lañ aussi nekk foo xam ne fu ñu dem dañuy représenté xombal bu ne Fat Boy si doo xombal xel yi mu nekk fu mu jëm euh, mbokk yi ba tey dañuy continuer li nga xam ne mooy émission bi ndaxte xar yi dina fi ñëw sàng si kanam tuuti ak aju Kumba Ñang waxtaan ci li nga xam ne mooy koor suukaru koor jigéen ñu ngi koy defee euh, si xombal point net bu leen tardé du leen dara du leen raw tey ñu yooyu yéen ci xombal point net ñu bàyyi bàyyi mu dem daal di ñi nga xam ne mooy suñu invité yi daal yi dugg si